ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy abonnement yi nga xam ne yéen a ngi koy woy di def seen seen préféré Aladji Malick TV stade Santiago Bernabéu pour la première fois ci saison bi Ah, ci ñax mu naat ma nga xam ne moo fa nekk dana dalal ah, li nga xam ni ah, mooy match boo xam ni goney Real Madrid yi ñoo ko nar a amal match boobee suba lay doon Gaston ba ngoog ñax mi tooy na xipp wala boog ñax mi defar nañ ko ba mu jaar yoon ngir waajal match boo xam ni bu am solo lay doon ci gone yi nga xam ni ñoo ànd ak Eden nga xam ni match boobee dana ca bokk ca deuxième mi ba loolee di lu am solo ci gonek Belgique gi nga xam ni fi mu toll nii sansam dafa mel ni lu ko réer waaye it ki nga xam ni mooy Carlo Ancelotti Ah, nar na ko may chance entraînement boobu sax def nañ ko ah, tey jii ci suba gi nga xam ne daanaka ña ngay waajal boo jongante boobu entraînement boobu amoon solo ci ñi nga xam ni ñooy gone Madrid yi nga xam ni ñoom ñëpp ña nga ca woon entraînement ba kookee di ah, ci waa mi ni ngeen gis ko noonu ak ki nga xam ni moo nekk Marc Asensio Modrić moom it mi ngi woon ci biir entraînement bi Carlo Ancelotti tamit mu ngi woon jiital gone yi ñuy def seen Euh, li nga xam ne mooy tàggatu goo xam ne gu mujj lay doon euh, balaa ñuy def foofee nga xam ne foofee daanaka bu ñuy ñëw dañuy mel ni ñuy daloo dal bu yees ndax euh, foofe defaraat nañ ko bam na booy tegu ci heure Ceballos it mi ngi ci woon Karim Moustapha Benzema ngeen gisoon woon ci biir image yi mu nekk entraînement boo xam ni bu amoon solo la waaye ba entraînement ba jeexee micro ba ku ko jël mooy Carlo Ancelotti yi yeb bi ay kàddu yoo xam ni yu am solo la xamewuñ ko wax waaye moom it ma ngay ñaax ay goneem ci match bi nga xam ne maanaam benn match tuutiwul ci ñoom donte dañuy football ci stade bi nga xam ni bokk na ci gën taaru ci àdduna bi nga xam ne defar ba sax ña nga ca programme ya nga xam ne tamit moo a am yebbee ko tey ji Dortmund dina dalal équipe bi nga xam ne mooy Offenheim loole mi ngi nekk tey jii tombe bu 18h30 jotee ci Canal Plus 2 yéen ñi nga xam ne yéen a jëfandikoo match yi foofee nekk na match boo xam ne bokk na ci soog yi nga xam ni tey jii ci ajuma ji séngam ñoo cay am soog yoo xam ne daanaka dana continuer sax bu subaa jàmm ci kàttanu sunu borom bu benn waxtu tegalee fanweer minute tubaab yi naan ko treize heures trente Sadio Mané ak kii ñoñam ah, dananu ah, football ci match boo xam ne ñoom it ah, beneen match bu am solo la parce que ña ngi cee daweel Euh, Berlin ma nga xam ni euh, daanaka ñoom Sadio Mané ñoo koy fekki fële nga xam ni mooy seen stade tombé ak ñetti fan ci juróom-ñeenteelu weer bi euh, benn waxtu bu tegal fanweeri minute nga xam ne match bi loolee lay am kon ñi koy seetaan nañu ko bàyyi xel Canal Plus Sport 4 lay amee ci foofee ci programme yi nga xam ni dañ leen koy joxal pour ngeen bañ a wër fu ngeen koy seetaanee beneen match bu war a am fole ca Mali. Ah, tey jii Sénégal gi nga xam ne ah, mooy ah, lion yi nga xam ne maanaam ñoo ne di football ci biir championnat Sénégal ñooy laale ak Lions yi nga xam ni wala bokk Guinée yi nga xam ne ñoo ne fële di football seen championnat match aller bi fii la woon ci maître Abdoulaye Wade benn bal ci dara match retour bi nag Mali lañ koy footballé ndax Guinée danoo am jafe-jafe ak seenub stade loolee mi ngi commencé bu ñeenti waxtu jotee nga xam ne daanaka yéen ñi ko bëgg a seetaan it ko jàpp ci RTS 1 ak en simultané